Wow, salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp donc xam nga fan yële passé dama fi génnoon ma ni leen euh, ki ñuy wax Ousmane Sonko bu njëkk ba da nga daan dégg ñu naan président Ousmane Sonko ñu dem ba ci biir di wax honorable député Ousmane Sonko ñu dem ba ci biir ñu jékki-jékki di wax monsieur le maire Ousmane Sonko tey mu ñëw nekk Ousmane Bongo waxon na len ni kep ku am ciet wala nga am ngénte wala nga am mariage wala anniversaire lu meuna don doon mun nga Ousmane Sonko ñew animé ko parce que Sénégal ñor ko animation moko ñor ak wut promotion ak wut tour donc nak comme xamul gam xam nit mom bo xamul gam ken du ken mëno mëno mëno mëno défar mëno défar rythme bu neex donc nak tay ji sénégalais nañ ni ko ni ko nit ñi amuñu sa jot ay ponkali mag yi jëm doon ay borom kër tabaski jëm si nit ñi jaaxle soxla seen bopp soxla xaalis bëgg dimbali seen njaboot nga taxaw di leen tëggloo ay cin te ñëpp xam ne tëgg cin day umaate day joxe crise day tardeel réew donc képp kuy def loolu ci réew xamal ni noonu réew mi nga Ousmane Sonko dama yaakaar ne Sénégal yi ñu ngi commencé di ko découvrir di comprendre moom mooy kan du nit koo xam ni ku bëgg jàmm la di nit koo xam ni ku yéene jàmm réew mi la donc nag dañuy profité ci occasion bi di félicité waat di encouragé sénégalais yi ci taxawaay bi ñu taxaw muy taxawaay bu rafet et puis di encourager le président Macky Sall ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey démb jokkoo bu am solo la def Sénégal yëpp toog di ko suivre Macky Sall bu mu Sénégal ak léegi li mu fi def amul mag Abdou Diouf def ko Abdoulaye Wade def ko Senghor def ko. donc nag mënuñu am président bu mel noonu ak ni ko addina bi di xëccoowee ñu am ay nit yoo xam ne tekkuñu dara dara intéressé wu leen lu dul jël nguur wala jiite Macky Sall du noonu Sénégalais ay quelque personnes yoo xam ne dañu am ay casserole casserole yooyu ñuy def moom la ñu am Khalifa Sall tey il problème parce que dafa toje xaalisu dëkk bi ñu jàpp ko Macky baal ko Sonko problème mu la am beneen sénégalaise moo jóg taxaw ni ko dem ma violé Barthélemy Dias gars yi dañ ko jiiñ crime ñeneen ci des ay Guy Marius di ëmbal ay xale lu nekk ñu dugg si ñooñu xalaat nañ un jour ñu jox lañ suñu réew donc na tey dama yeewu nag pour xamal leen ni kii xamul gaam moo tax sénégal ay franchement maa ngi leen di féliciter di encourager